naka artiste wàcc ca njabootu Omar yéen soxna Aminata Batal di soxna ci Thierno Cheikh Omar Bachir Tall moo fi bàyyeekoo niki tey jile bokk ci sax njabootu Cheikh Omar Foutiou Tall génn àdduna nag niki tey jile yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre pour fii ci diwaanu Louga équipe Dakar Buzz di bokk ak ñëpp tis bile te di ko ñaanal yàlla xare ko aljana